salaamaaleykum beaucoup téléspectateurs de ñuy antibir ci biir Asfiya et ak Ovision tey ñu ñëw numéro découverte spéciale tabaski ñu war a ñëw jàkkaarloog euh, suñu président Abou président FENAFO ak ku mel ni président Bak, BAC bergerie alhamdulilah ñu y a aussi dem jàkkaarloog euh, Fadilou Keita moom mi nga xam ne président ADAM pour mu wax ñu un peu tey seen tabaski 2022

donc à tout de suite c'est un numéro spécial de tabaski Inch'Allah. Inch'Allah. naturellement waral Je euh, aspect euh, déjà euh, période bii période aliment bétail euh, doon manquer toujours même bu manqué wul bu amul vous bu mu am léegi daan na euh, parce que tout simplement euh, ñax do amati si àll bi euh, donc waa àll bi tey jii dañuy con dañuy xëccoo ak waa taax yi aliment bi te waa àll bi xam ngeen seen consommation dafa am doole donc su fekkee consommation bi yokku na te fekk production bi suivrul ça pose problème donc faut actuellement loolu vivre euh, consommation bi production bi production bi tamit lan le problème bi que euh, premièrement euh, avant même la guerre de l'Ukraine actuellement il y a la guerre de l'Ukraine qui a empiré la situation mais avant même la guerre de l'Ukraine il y a eu la situation Covid B. bon si Covid B, mondiale est paralysé donc comment yi nous euh, si àll bi si euh, fournisseur yeeg Chine Hong Kong Dubaï Europe partout euh, commandes yi donc dafa wàññeeku donc voyager yi ce qui fait que voler, yi dañu euh, su commande wagné que donc fret déjà avion su compagnie donne am ay avions par jour dañu wagné peut-être ay ben ñaar lañu ñu ah, compagnie maritime yi don am par exemple si si weer par exemple ay ay 200 bateaux compagnie yoy tamit euh, peut-être si weer bi ay ay une dizaine de bateaux l'ont ñu am ce qui fait que euh, li doon daw du du daw ce qui fait que de dañuy wàññi euh, aussi une clientèle su c'est une charge de itam yokku mu tasante carburant avec yooyu yoko, yokku ñoom ñoom c'est seen prix tarif dañ ko yokku donc tarif transport internationaux yi dafa yokku de 30 aujourd'hui on parle de 70 milliards yoo xamante ne dañ koy importer ci ay intrants mu nekk lu doy waar loo xamante ne ñun am nañ suuf kon lan moo tax mënuñoo produire ba 70 milliards yooyu au lieu que ñu koy génn di ko dépense si biti mu nekk loo xamante ne dañ koy produire fii sunu ay éleveur sunu ay éleveur mën cee bénéficier wu donc booy wax ci wàllu euh, déficit bi am ci mouton tabaski déjà ma souligner ni état bi ci PAP 2A ils ont ils ont dit que ñoom dañu bëgg a lutter contre le déficit en mouton waaye bu aussi dañ bëgg a sawarloo éleveurs yi ci culture fourragère donc gis-gisu état légui tourner na vers agriculture ak élevage Légui nak pour déficit bi ñu résoudre ko état bi mo ñu mëna jappalé parce que état bi mo yoré foncier état bi mo yoré financement. donc situation yépp su motax tax tey jii euh, usines yi suñ daan jënd liñ dan jënd ci céréales parce que tey jii composition alimentaire bi mëna wax 90% yi day joggé bitim rew. muy blé bi nga xamni ne de blé fu lay joggé muy muy muy muy maïs bi ah di di tout une partie tout yi donc ce qui fait que l'usine, euh, ce qu'on a importé, ce qu'on a indiqué, c'est presque de 40%. Donc c'est une charge qui est Mais c'est une charge qui est indiquée, c'est normal que nous devons répercuter ce prix. L'État a fait ça. Si l'État a fait ça, ñom liñ naron yok de li yok système pour lolu lañ naron yok donc dañ naron yok de 40% mais au lieu ñu yok de 40% état bi daf leen bëss bu ñu yok uniquement 10% à peu près ah maintenant euh, loolu am amna mais lu gëna metti mettil affaire bi c'est la pénurie té pénurie bi aussi lu ko indi moy non seulement ñom à l'étranger ils ont des problèmes à l'étranger affaire bi prix bi dafa yokku mais pour nga am ko dafa jafé donc ce qui fait que ñom actuellement dañuy jongler mu tasante période bi nga xamni biñu bi génn surtout moy koor gi agriculture bi dafa dox ah agriculture bi su doxee nak ñu agriculteur dañuy commander lu bari té ñom xam nga seen commande su xaaree rek touti seen ginaar yi dañuy dé donc finalement euh usine dañuy don accord de priorité euh, un peu euh, aux agriculteurs ce qui fait que euh, nit da ngay am bon ci usine bi pendant deux semaines doo ko am té pénurie fu mu amee rek pénurie moy manqué na manqué na fu mu amee rek yokk day am yokk bu am dayoo day am parce que bu boobaa. Euh, man dama lay jaay nga yok 1000 francs yow nga jaayaat kenen mu yok 2000 keneen jaayaat kenen yok ainsi de suite donc voilà la situation tey jii euh, yokku yokkute moko indi ah dama ko détaillé rek pour nit yi gën xam mënoon naa rek né bon yokuna mais ki mais c'était pour nit yi xam sa njëlbeen ba fan la jógee. biñu gëna gën nak moy Sénégal amuñu xojur ki limu mu lekk saako aliment bu jógee 8000 francs dem 13000 francs c'est excessif ministre du commerce aussi warna mëna dimbali éleveurs yi ci loolu ndax saako aliment ni mu daan jaar usine bu yokkee tam bariwul mais bala moo egg ci ñun consommateurs yi day métti trop fi muy jaar am na tuuti njuj jaaj ji fa xaw nekk mais lu tax loolu donc ñi ko war a saytu ak ñi ko war a taxaw ñoo ñoom ñoom la seen liggéey des ñoo ngi leen ci woo ministère leen leen tëral la wala commerce wala xaw ma ban ministère bu ci bi mu aju na ñu ci jàppale parce que itam loolu peut-être yàlla am nañu seen nu mu dogal seen loxo jote seen ginnaaw dinañ ko mën mais am na ñoo xam ne tam day xaw a métti ci ñoom loolu nañu ci jàppale bu baax a baax te xam naa dana baax. solution bi wax naa ko waxaat naa ko te dinaa ko continuer wax te bi mu koy wax boobu dara xewul bi mu koy wax cours mondial maïs yokkuwul bi mu koy wax Covid amul bi mu koy wax dara manqué wul fii mooy lan éleveurs yi nañuy bay nañu am seen indépendance nit ki soo nee yow éleveur la professionnel la ngay dépenser ay million di jaay di gagner ay millions war nga xalaat say coût même sooy am bénéfice sax soo doon am tey ji bénéfice cinquante pour cent war nga ne non cinquante pour cent bi war naa ko améliorer ma jéem am bénéfice soixante dix pour cent waxatuma nag koo xam ne amul bénéfice donc tey jii coût yi dañ ko war a xoolaat coût yi naka nga koy xoolee mais yow nga xool euh, euh, ngay dépendre si kenn koo xam ni saa yu ko neexee mu yokk. Yo, nga nga nga commencé yow di di produire sa bop nga xamni koku su yoké su yokul yow li nga war am am nga ko parce que tay ji bay bi rek moñu ci mëna génné amul lenen bay bi rek moñu ci mëna génné tay su ñi ko xam ñi nga xamni mën nañ ko parce que man suma wax bay waxuma éleveur yépp nañu bay parce que du ñëpp am moyen bay du ñëpp am tol mais ñi nga xamni tay ji ño am tol am moyen bay ñoo ñu kessé suñu bayon tay ngoñ bi day wacc té su ngoñ bi waccé e. han aliment bi day wacc Parce que si vous avez je un exemple. Si quand je suis baillé en silage, hein, ah, je donne euh, silage, presque, je moins de 40 francs. Alors que si vous avez 15 kilos, si vous avez divisé par les sacs de le kilo de est revenu plus de 30 francs, euh, plus de 300 francs. Donc presque multiplié par 10, c'est 10 fois plus cher qu'un silage. Et un silage, non seulement, vous remplacer remplacez mais vous pouvez remplacer une partie de l'aliment. Parce que l'ensilage, c'est double ou le Tu vois Donc, moi, personnellement, je me donne je donne chaque jour pour que je me donne je me donne 3 sacs 3 sacs d'aliments par jour. Mais les ensilage, 3 sacs ensilage, je l'ai utilisé. 3 sacs de, de 30 kg, 90 kg ensilage. L'eau, qu'est-ce que c'est Permettre-nous gogne bi utiliser tumuko aliment bi que don faire deux sacs un sac et demi il def donc euh, un sac et demi presque économiser na fof 15000 trois sacs yi économiser na 15000 donc man lolou une économie de 30 000 francs par jour 900 000 francs par mois 900 000 francs par mois 10 millions 000 par an. C'est ce que fait l'économie ren fi aliment toll ci seeraay Jafé jafé yi éleveurs yi am pour am sax lu ñu suuralee seen xar aliment de substitution danaka amu fi façon choono bu nek éleveur diko ko daj tabaski bi ñepp jaxlé pourquoi parce que non seulement production bi fi yemamaay mayna waaye aussi dëkk yi nga xamante ne dañoo dépendre ci ñom lu melni Mali dafa am ay sanctions yu dal sen kaw restrictions yooyu tax tay ñu bari jaxlé nañ xam nañ xar yi na dugg ci mais bu dugg ci aussi day dugg si au compte goutte problème yooyu yëpp dafa tax nak ba association bi bu ci nopi won association bi soo amul won taxaway bi association dootu amati ben crédibilité pour taxawati di wax ci walu élevage raison pour laquelle non seulement ñu ngi wo sunu membre pour ñu suivre initiative bi à la place de am ben Omar Sow benn Aboukan Ben Siré Diakité Ben Vieux Sey dañoo bëgg mu jóge ci quatre wala cinq personnes nek ay centaines de personnes yo xamantene kenn ku nek da ngay samp di def opération tabaski donc association day impulser day wane yoon milliards yi génn di génn di dem ci sous région bi naam bon du ma ne yéenewuñ leen ko waaye xaj na fi parce que sénégalais bari léegul nous sommes un pays sous-développé ñu toogaat liggéey at baat jot nit ñi jëlaat lu toll ci milliards yu takkoo takku génnee ko yóbbu ko sous région bi mën na ñàkk léegi lan mooy solution bi mooy ñu ñu dellu ci mbay mi dellu ci sàmm gi te yàlla dogal na ci surtout ci wàllum xar sénégalais race bi ko yàlla jox euh, néew ma amul feneen ci àdduna waaye man gisuma ko donc loolu war na mën a tax ñu góor góorgóorlu promouvoir race bu liggéey ci ba am autosuffisance en mouton xar tabaski moom jéggaani ko war a doot nekkatul wareefu sénégalais léegi nag euh, ku ci nekk état naam ñu ngi ciy dox ay jéego yu baax a baax waaye ñun itam kii nu réclamons éleveur ku ci nekk war nga cee mën a am sa wàll bay ko ci chaque jour ma joxe benn solution euh, en exemple mooy ku ci nekk ndakaaru kenn dëkk ñun ñëpp am nañ dëkk buñ cosaanoo

ñun engouement bi ñuy am ci fête bi ute na ak ñoom ni ñu koy amee donc suñu consommation day ëpp fuuf ñoom li ñuy am moo tax nag ñu war a teg ay ay jéego yu dëgër yu fondé yoo xam ne dina saa yu ñu soxla ci jur rek war ko mun a am suñu laadum bi buñ ko jëlee métissé ko ak race locale bi xar fu mu daan am ñaari at pour ñu jëfandikoo ko soo amee dix mois tool nu ko neex dinañ ko war a mën a jëfandikoo léegi nag nan la ñuy def ba laadum bi tas ci biir Sénégal d'abord ba génn su suy région bi dëkk yu ñu wër loolu war nañ ko mun a waxtaanee war nañ ko mën a bàyyi xel waaw éleveur dañ ci def seen wàll état bi tam mu gën ñoo góorgóorlu jàppale ñu ci. bëgg nañ aussi ñu jàppale ñu dans la sous-région laadum bi dafa war a sax dem améliorer ji lu mel ni Mali Mali ñu ngi dépendre ñoom jël si ñoom xar de mais laadum bi dafa war a dem tàggati seen xar yi parce que seen xar yi dañoo nekk bi man président sortant bi fi nekkoon booy naa koog nit mu jaay ko 15 xar mu yóbbu ko am na xar yu dugg Ghana am na xar yu nekk Gambie fan yii passé lañ fa jógee benn cérémonie am na yu nekk Mauritanie donc tey état daf ñu war a jàppale ci ni ñuy jëlee laadum bi di ko dugalee benn benn benn si dëkk yooyu noonu loolu yëpp koom-koom la boo xamante ne incha allah day ñëw Sénégal ba pare yokk tur Sénégal loolu yëpp su ñu ko defee nag dina allah déficit en mouton bi dina wàññeeku te mbir dina gën a jëm kanam. loo xam ne defal na ma économie 10 millions te li ma si frais daanaka motul 3 millions donc loolu mooy solution bi te loolu su continuer ku je l'ai man mais donc suma consommation aliment su wàññeekuwee man a su may consommation aliment su wàññeekuwee mais ça veut dire que demande bi ñu la demande en aliments sur le marché local demande bi day wàññeeku su demande bi wàññeekuwee pendant que la production augmente qu'est-ce qui va s'en suivre c'est la baisse des prix loolu suñ ko defoon tey jii ngooñ moom ko waxati moins de 2000 francs lay jar loolu ben la et aliment bi en ce moment là usine bi même sur leen aliment bi diké huit mille francs suñu togué jaayetuñu ko dañ ko jaay quatre mille francs parce que duñ ko tok diko continuer stocké te aliment à la coulée à la usine yi par force lañ koy def parce que euh, aliment bi base bi son de blé la te ñom lan moy seen liggé farine usine bi farine bi lay def meunier la donc su décortiquer farine bi su su décortiquer euh, kii bi blé bi euh, son de blé bi muy am

parce que suñu créer usine tey jii usine bu ñu mën a tey créer mënuñu fi créer usine ba ëpp Grand Moulin doole wala ba ëpp NMA doole te ñooñu tey jii li seen matière première yooyu quatre-vingt-dix pour dañ koy importer donc bu boobaa tamit dañu continuer dépendre si importation bi alors que yow soo de soo béyalee sa bopp doo dépendre si kenn. effectivement loolu loolu sàmm gu ne war nga am tool boo boo boo génnee tuuti dem bitim réew dem naa fa visiter ay tool en Allemagne et ak feneen ak feneen en France da sa. sàmm gi tool yaa ngi ci wetam donc li xaram yi dundee wala li nagam yi dundee ci wet gi la koy bay loolu mooy yoon waaw fii Sénégal bëgg nañ ko ku mel ni man bëgg na ko ak keneen ak keneen mais bëgg gi sécurité bi moom moo amul jéem naa essayé génn bambiloor gi nga xam ne boo sëqatee ñu dégg la am kon kooku bu demee Tivaouane mbaa mu dem Kaolack mbaa mu dem Touba mbaa mu dem feneen du am sécurité donc vol de bétail boobu moo tax ñu bari ñemewul bëgg nañu génn bëgg nañu bay waaye da bay sax ba sa tool jekk sama mbokku pël yeeg seen nag yi ñu ko yàqal lépp yooyu yëpp ay ay ay ay ay détails la yoo xam ne war nañ cee mën a bàyyi xel nguur ji itam moom moo fàgg mu jëm ñu ci jàppale bëgg-bëgg gaa ngi fi waaye li yàlla xam daal doy na war nañ ci mën a jàppale bu baax a baax. Euh, foncier muy suuf bi nga xamante ne moom lañ soxla pour bay état moo ko yore waaye aussi financement état moo ko yore xam nga état tey. amna direction de l'urbanisme et de l'architecture bu nek bu dépendre ci ministère de l'urbanisme waye aussi état amna product. mi nga xamné ne day préparer ay DAC pour mën ko jox éleveurs yi ñu bay amna ñu bëri ñoo xamante ñu ngi tourner autour du financement euh, du secteur de l'élevage état nak moo si mëna dimbali éleveur parce que éleveur ñu ci bëri aussi bu ñu fàtte circuit informel lañ nek tay circuit bancaire classique bi nga xamante da ngay liggéey nek fonctionnaire quelque part wala nga nek ci administration bi am sa bulletin de salaire dem si banque bi lever éleveurs yu bari mënuñu ko mais par contre am nañ ay revenus yu irrégulier mais mu nek ay montants yu am solo donc su boba dañu wara fexé rek ba état nu mi mengalé ay mbiram ba ci jot foncier bi wa product war nañu yombal wa urbanisme aussi war nañ fexé ñu ba si foncier bi am nañ tay ben la bu mag mi ngi am solo ni aboutir ministre de l'élevage aussi wax am 12 12000 hectares boo xamante ne président de la république mi ngi koy éleveurs pour une def zone spécialement dédiée à l'élevage. Et ce pour boobaa association yi lañ koy jox pour association yi mën mais aussi lu a une délégation à l'entreprise rapide. Sans beaucoup d'éleveurs, il y a aussi président de l'association. Ce qu'on doit faire, a faire des def ba information yi dem au niveau des éleveurs ñu si on a un crédit agricole am na lu fa possible boo demee BnD, FONSIS FONGIP am na lu fa possible boo demee DER am na loo c'est ne c' possible waaye aussi boo demee a yenn administration yi yore wàllu suuf di ko jox éleveurs yi aussi am na loo c'est possible aussi ministère bi aussi récemment sax promettre nañu ko encadrement technique bu nek dañu soxla ay formation pour tagat éleveur yi pour ñu mëna bayal sen bop pour ñu mëna autonome xam ni ñuy gérer sen tool yoy yooyu ministère bi pare na pour accompagner gis nga volé yoy noonu yépp ma tudd muy walu encadrement technique encadrement sanitaire walu mbay walu lever financement pour mëna liguer. liggéey yépp moy tourner autour du mouton donc si ñu bëggee tay résoudre déficit en en mouton tabaski tay éleveur yi nga gis ku leen dimbali ku jox financement am na loo xam ko organisation par exemple fenn am nañ coopérative euh, bientôt on va vers les renouvellements suñu renouveler ba am vraiment une commission bu dëgër bu gérer cette coopérative là Hein? on va vers ça def coopérative bi nga pour bay la. dinañ def sax boo xam pour habitat mais pour bay bi moo ëpp solo suñu demee ba cibler quelque part fu ñu mën a def ay terre boobaa dinañ solliciter état bi soit. Euh, pour aménagement terre voilà wala pour octroi terre yi fu nga xamni amuñu fa mais pour le moment lu ëpp solo ah, ñun euh, dañuy sensibiliser nit yi ba paré wan leen yoon bi parce que man je du ma du ma euh, sensibiliser nit rek yam fofu man damay dama man dama dama gëm ah la la la la pédagogie par l'exemple man sumay may jàng nit sumay diggal nit dara man ma si jitu bi may diggal nit yi nañ dem béy dama dem bay yi wan leen yoon bi récolté voilà résultat ah, chaque jour dama économiser 30 francs chaque mois ma économiser 900 000 at bu économiser millions donc c'est comme ça non, la non, non, non, exemple bu donc c'est important euh, yombul ndax yombul déjà waral déjà bi soble bi ñor la demande n'était pas là les conditions de conservation yaatuwul ba bu ñuy egsi ci tabaski day fekk baykat li ci ëpp seen soble yàqu li ci des si néew du doy ci marché bi kon yomb moom moom yombul de par rapport ak xeyna il y a juste deux ou trois semaines nga xamné moy de 4000 francs la won moom yombul présentement soble amul soble amul soble amul pomme de terre amul euh, bu dé soble les conditions ne sont pas réunies pour conservation à longue durée wa bu féké mbay bi paré na au plus tard euh, mars mars léegi béykat yi da ngay dégg ñun seen soble yàqu na tout ça là parce que ay accompagnement yoo xam ne si mën nañ ñi def ba ñu conditionner soble bi dans des conditions optimales ba bu tabaski bi jotee la demande ñu mën ko satisfaire les conditions ne sont pas malheureusement réunies moo tax soble moom yombul déedéet fi mu toll ni tey ñun ñoo ngi koy jaayee en gros 8500 man moom laa koy jaay mais dégg dégg naa ci marché bi 9000 9500 mais man en gros 8500 laa koy jaay. fi tol toll nii bi ngeen ñëw fi mu amuñu ñun ben sac pomme de terre Et on ne à deux trois jours euh, tabaski ndax pomme de terre auto ya nga taxaw mbaam di xaar fofu timit c'est c'est beaucoup plus délicat ci ndaxte ben nit mo yor monopole pomme de terre malheureusement pour les Sénégalais et heureusement pour lui ndax momit pomme de terre bu bare il a ses chambres froides yo xamanteni ni day jël cinquante ba 60000 tonnes conserver pomme de terre am bam soxla ko ñun nak amuñu ko. bon baykat yi amuñu ko de ce fait pomme de terre bu paré à part de mars rek ñoomi dañ koy jaay ba mu yaq gouvernement bi je dirais non mais ki ñun d'accord parce que bon dafa am sama ben ko xamne dañuy waxtaan ci collège ben bis maniko lan motax ñuy xolé ba indien bi itesse bi ñu sénégal 2005 andiul dara jël ko mom ko nangam sangam mu ni ma ñun que ce soit man cheikh que ce soit ñom biñuy ñew dakar ñun suñu commerce nekkon na ci ubi magasin am auto am kër suñu objectif fofu la won et li nit ñi xamul ITES nekkul commerçant ITES c'est un financier école bi mu génnee Amadou Ba suñu ministère finance fa la génnee kon kay ñun du suñu faute mais les financiers yi nga xam ñoo bokk ak ITES école bu ñu génnee nañ dem ci àll bi bay wa malam maanaam moy l'idéal mais malheureusement bu ñu jógee fii problème pomme ñi lijjanti ko sekkee ni lijjanti liñ luñu tabaské bu suba dañ ci génnaat et problème bi ça fait 10 ans mi ngi fi te dans les 10 ans à venir du fi jógaat

mais amuñu ko leen ci jàppale bien sûr waye man sama échelle la wax amna ay patron yo ay ay producteur lañ Khadim au niveau de Sadidal mi ngi produire mi ngi produire soble mi ngi produire pomme de terre ci mais si on a ñu mel mom légui concurrence indienne directement état mën accompagner mais il faut volonté personnelle privée ba et comme euh, état accompagné lay def volonté personnelle privée ba paré xala di sante di situation bi posé wu les sénégalais xamné ñun duñ ñun c'est-à-dire ñim leen naqaree la ñu naqaree bu ñu toogee fii tey am camion yu nekk euh, au niveau de Mbane mënul chargé ñëw am na ñoo xam versé nañ seen xaalis am ñu leen neex bu ñëwee ñun que ce soit revendeur man saako soble mënu ma koo gañee gañe ba gañe ci lu ëpp téeméer kon maanaam bu seeree fi muy jógee la waaye ñun bon à un degré moyen suñu responsabilité di ci jéggalu baax a baax ñëpp rek dafa vraiment accompagnement bu baakha a baax ma ñun suñu liggéey ñu ngi jël association bi diko positionner positionné waat taxawaay boo xamante ne dinañ jël en charge attente éleveur yi nga xamantene bari na mais aussi dañ méngale suñu gis-gis ak gis-gisu état motax fa ñi passé def nañ lu ñuy wax document d'orientation stratégique deux mille vingt 2025 deux mille vingt cinq deux dynamique 2025 invité ministre bi ministre bi délégué Dame Sow le directeur national de l'élevage tok mom moom liggéey ak mom ba vingt ci goudi document bu exceptionnel. barki démb rek nit mi ngi nan ma ministre mi ngi wax euh ci radio bi di len tudd mais aussi devant le président de la république ministre bi mu jëlee kàddu tudd na ba tudd sunu document d'orientation stratégique bo mu nek ay projet yu ama ama solo yo xamantene tay buñu état dimbalee rek ñun am nañ possibilité ak sunu membres inshallah am fuñu yobbu élevage te déficit yi ñuy wax ay 200000 têtes ay 300000 tête éleveur yi buñ ci juggé ben at mu jeex inshallah limay tejé rek euh moy mooy aussi euh, di ñaax euh, consommateurs yi ñu def attention parce que bari na ku jënd xaram. ne jënd naa suma xar yóbbu naa ko suma kër yow naa fekk mu dee ah te duñ xam lu ko rey parce que nit yi euh, dañuy jënd seen xar tabaski des une semaine wala mu des ñaari fan yow nga bugg si ñaar ñetti fan yi si des xar bi euh, engraissé wu loolu mënta nekk mënta nekk xar soo ko buggee engraissé mu changé dëgg dëgg dëgg li koy changé au moins dina mat weer di nga te yeew xar pendant weer pour nga mën a gis changement mais une semaine avant wala trois jours avant wala la veille mënoo si xont xar ba mu changé soo ko solee tamit ba biir bi funki tamit sa bopp ngay nax donc lu bëri ñu liy nax nit yi loolu la forcer si dernier jour yi forcer xar bi mu changé loolu mënta nekk xar bi bi nga koy jënd nu mu toll ah ba bi nga koy yéré daanaka du yok wala su yokkee ay ay ay quelques grammes la maintenant euh, soo jëndee xar si nit ki da nga laat ki ko ki la ko jaay xar bi lan la tàmmalek lan la tàmm lekk soo ko laajee lan la tàmm lekk bu boobaa yow soo demee sa kër nga appliqué loolu bul changer régime bi parce que xar bi bu fekkee tàmm na lekk benn façon nga ñëw nga jënd ko nga yóbbu ko sa kër nga jox ko beneen euh, façon aliment biir bi day daw soo amee chance su amee chance biir bi day daw su amul chance day fër mu dee donc nañu def attention si loolu bu baax képp ku jënd xar nanga laaj ki la jaay xar bi xar bi lan la tàmm soo demee sa kër nga continuer loolu tey aussi nga def ndànk bañ ko forcé nga xam ni lii des si tabaski xar bi mënu si engrais sew waaw di jaajëfal mbokki sénégalais yi rek di jaajëfal mbokki éleveurs yi di leen ñaanal jàmm ak euh, sutura di ñaan yàlla tabaski bi fekk ñu ci jàmm ñaanal per de famille yi ku ci nekk gannaaw xar sag la ku ne bëgg ngaa takkal sa njaboot yàlla yombalal la ko nga am ko euh, ñu am feetu jàmm ak salaam yàlla wis ci réew mi jàmm waaw di kontaanaat ci ñëpp di di jaajëfal waa Asfiyahi salaamaaleykum wa